il n'y a pas un, un administrateur euh, PASTEF, il n'y a pas un administrateur PDS, un, non, l'administrateur, il est au service de l'État. loolu nag il faut que aussi ñuy bàyyi di dénk direction yi ay politiciens aussi. je pense que si quelqu'un qui est politicien qui n'a pas la compétence il ne doit pas occuper une fonction administrative t'as beau faire de la politique mais si tu n'as pas de profil t'as pas de compétences techniques administratives tu peux pas gérer des ressources humaines au nom de quoi on va te confier un destin commun okay. Tu peux gérer le destin de ton parti, mhm. de tes militants, de tes sympathisants, mais le destin d'une nation, quand même, le critère déterminant, yaakaar naa compétences techniques, administratives ak management. Okay. Mais loolu de de de de Bassirou elle est importante quand même. On peut le voir comme euh, un projet, comme une alerte, comme une invite. mais le plus important mooy c'est sur cinq ans bu mu yaakaar ne que administration bi dañuy yeew mu change c'est pas vrai administration ça change sur des années uh -huh. sur cinq ans au moins ou au plus sur les quinze ans donc loolu c'est un bon départ pour euh, pour euh, le, le, le président de la République maintenant l'administration je pense que il y a ce problème donc du choix des hommes mais il y a aussi les Sénégalais C'est-à-dire, affaire bi aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Si, les agents sont corrompus, s'ils sont démotivés, les Sénégalais sont corrompus. Mmh. Ouais. La, la corruption vient aussi de la, de la société. Mhm. da am sa xaalis nga ne nga corrompre tel agent il te wala nga am marché wala et cetera ou bien tu es chef religieux tu as ton talibé à un poste stratégique ou bien tu es de la famille. donc la pression sociale là aussi. Euh, defe naa probité bi c'est c'est des deux côtés uh-huh. ça au de l'agent mais aussi au niveau du citoyen parce que mu ngi cité l'article 2012 de la, le, la, la loi 2012-2 du 27 décembre 2022 portant code de transparence dans la gestion des affaires publiques que la transparence n'est pas une obligation mais c'est une obligation que que que mais par exemple tu, tu marché d'un d'un milliard un milliard c'est l'État qui te confie la gestion d'un milliard mais mënoo affecter un milliard sur la base que ñun ñoo bokk parti wala ñu ñoo bokk tarixa wala ñu ñoo bokk euh, dëkk mais tu dois l'affecter en fonction des objectifs du, du public d'accord que am nga compétence bi mën nga respecter les normes mën nga respecter les délais c'est ça un État mmh. je crois que euh, pour moi vraiment peut-être que président ak premier ministre bi ak gouvernement bi war nañu envisager une campagne sur sur des années mm -hmm. sur l'administration parce que pour changer une administration encore une fois elle est lourde te dafa bari des pesanteurs qui bloquent l'administration et, et cette bataille là comme euh, ni la ko euh, waxee président Macky Sall initié woon na fi euh, des réformes hein? mais bien sûr des réformes mais depuis Abdou Diouf c'est Abdou Diouf c'est le premier Euh, Abdou Diouf est venu en tant qu'administrateur. Il a gouverné en tant qu'administrateur civil. Mais si tu vois l'échec d'Abdou Diouf, mais c'est l'échec de notre administration. Notre administration a été incapable de gérer nos sociétés. On a été obligé de tout privatiser, de fermer des entreprises. Mais parce qu'il y avait des gens qui, qui, ont, qui, ont, qui ont déstabilisé l'administration. La, la, C'était qui c'était les politiques, c'était les marabouts, uh mhm. -huh. c'était tous ces trafiquants. Uh mhm. -huh. bah, Macky c'est la même chose il a il a fait beaucoup de. a pris beaucoup de la ñuy tuddee les délinquants à a fait beaucoup réformes de l'administration. Mhm. Euh, si tu te rappelles l'essence le téléphone l'habitat Macky a pris beaucoup de mesures. mais le résultat c'est que administration bi. elle, elle a une capacité de résistance à la réforme du mmh, service public. Bien sûr. et loolu bon je crois que Bassirou quand même euh, ak Ousmane Sonko xam nañu la plaie elle est où. Mmh. mais léegi nag c'est le remède est-ce qu'ils auront le courage d'avoir le remède de, de cheval. Mmh. ah parce que loolu loolu aussi dafa laaj euh, beaucoup de courage et de détermination suñ ko amee ñu am ñu leen di jàppale ci administration bi askan bi aussi nangu change mentalité et de comportement d'accord d'accord doyen euh, euh, président Cheikh Diop yéen ci jubbanti jub jubal jubbanti boobu noonu administration seeni liggéeykat a fa nekk seeni syndicat fa nekk da ngeen yéen da ngeen nar a toog di ko xool wala da ngeen ci jóg dox déet xam nga boo seetloo mbir mi da ngay dafa am boroom xam-xam bu mag bu wax ne chaque génération découvre sa mission la remplit ou la trahit Franck Fanon Franck Fanon kon tey jii bu jomaay ñëwee parce que état aussi boo ko xoolee continuité la mhm. xam nga jomaay xaaruñu ko ci ay infrastructure mhm. parce que lu ci bëri Sénégal am na ko ba pare ak yeneen yi li ñu koy xaar mooy li mu wax mhm. mooy mu jubbanti jubal jubbanti jub. Mm-hmm. jub parce que loolu bu ko réussir te ñun ñëpp ci war a jàpp bu rek no ay ay njiit yu am xam-xam bëri na fi. waaw mais xam nga. ay njiit yu. Ah, xam nga bëri diplôme voyagé wër àdduna bi gis lu ne dem ku ne xam ku ne. mais nag est-ce que lu ñu manqué du mooy. ay njiit moom kay gis nga euh, man yaakaar naa ne fi mu ne duut baaroom foofu la nañ ñëpp dañ ko ci war a jàppale pour mu réussir man jàpp naa ne pour mu réussir parce que réalité. état dafa am aussi. nguur dafa am réalité. bien sûr li ma jàpp te yaakaar naa ne ñëpp a war a jàppale ko pour mu réussir war na def état des lieux bu bu bu concret bu leer. exhaustif mënut a ñàkk. bu defee état des lieux bu leer dina xam fi muy teg tànkam pour appliquer li wax parce que li mu wax ñëpp ci d' accord. Mhm. ma joxe ci benn exemple dafa am ay ay ay société yu nga xam ne da ngay nekk maire ñu jox la société bi. donc loolu dafay inciter. yenn post de responsabilité yi pour nga jot ci da ngay dem politique yi te boo politiquee li mu mën a jur ci post bi dafa bëri ñun nag ñun ñu nekk pétrole yàlla dimbale nañu ci nekk saar bokkul fenn te gis nga loolu nag boo ko seetee bariwul nag mais boo ko seetee ñoo ñu nga xam ne dañoo yor société yu am solo te bokkuñu fenn boo xoolee seen liggéey da ngay gis ne lii jomaay wax dëgg la war nañuy xool poste ñi ñu koy jox am ay critères bu laajee ñu def appel ak candidature ñu def ko waaye ya ko joxe post yaa ma neex jox poste yi nga xam ne yépp ay responsable politique attitré ñoo ko yoon am nañu ay jafe-jafe yeneen société yi nag yi nga xam ne ka fa nekk bokkul ci benn parti politiqueul société bi rek a ko itteel. bariwul de mais mais souvent souvent dañ naan politiqueul parce que gisuñu ko ci ndaje politique yi mais goxam ma nga fay mobiliser di financer. pour déedéet man man xam nga politique ñaari façon su ma waxee dara moo tax visage découvert ak moo tax du ci sori su ma waxee dara daf ma leer baax na secteur bi ma nekk baax na ña fay politique xam naa leen ña fa politique te seen société di dox xam naa leen Sarr ku ko jiite du woon soxna Sarr ah non non Sarr eh, madame Décrène moo ko yor may mun may mun a ndooy Décrène moo fa nekk moo fa nekk moo fa nekk ba lu jiitu loolu nekkoon na ci yeneen yeneen projet yu nga xam ne xam naa la mu fa def moo tax ñu jox ko Sarr gis nga Sarr Sarr man jàpp naa ne duñ war a bàyyi xel la ndax fi mu sosoo la fi mu juddoo la Sarr buñ ko buñ ko fàttali ko fàttalikoo Mamadou Dia moo tax mu judd président du Dia boo seetloo lim dëxëñ ci biir Sarr ñun ñëpp ci war a jàpp. en tout cas ñun travail africaine de raffinage. mais ala voilà bu ñu indee pétrole bi ñoo koy raffiner wala du loolu sa xam nga boo gisee Afrique boo ko xoolee Sarr 1960 lañ ko commencé concevoir 61 la la ubbi boo xoolee. Côte d'Ivoire Ghana tous les pays yi am raffinerie xam nga du seen raffinerie tudd société ivoirienne de raffinage société ghanéenne de rafinage raffinage Mamadou Diané société africaine de rafinage loolu dafa am lu mu dëxën ambition la dëxëñ pour ñu nekk ëpp pétrolier au niveau de l'Afrique loolu la ci dëxëñ te booba amaguñu pétrole koñ bu ñu amee pétrole war nañ jàpp ci suñu raffinerie bi justement pour que cette ambition là soit réalisée te loolu am naa ci yaakaar ndax gis nga bi pét bi. Eh, eh, eh. nan lañ ciy jàppe pétrole bi génn fii dañuy exiger société yi ñu raffiné ko. fii doo ko génne dañ leen di bàyyi ñuy génne pétrole brut bi yóbbu seen. li xew Nigéria mooy loolu éviter nañ ko Sénégal on a parce que Nigéria ba mu nekkee pays producteur amul bu yàggul rek la Dangote soo ko tabax raffiné yàggul waaw mais dañ daan jël tous les produits di yóbbu bitim réew ñu raffiné ko indiwaat leen di lañ ko jaay mooy cher gis nga bi ñu yëgee ne major yi pétroliers yu mag yi nekk ci àdduna bi xelmatee ne Sénégal am na pétrole bu am solo ak gaz bu bëri seen premier acte bi ñuy posé moo doon dañ doon def tout pour fermer la raffinerie. quelle raffinerie ça. oui. total excuse-moi du tudd sax parce que ñoom ñëpp samay militant la am ñu nga xam ne dañu retiré wu ci capital bi retiré assistance technique bi mais mais Ibrahim li ma lay wax nii. dañoo def tout comme ay marionnettes lañu dañu def ay dañu def ay commune pour tëj saar def ko dépôt pétrolier pour que bu pétrole bi génnee ñoom ñu ngi ko yóbbu seen i raffinerie décidément gis nga bañ koy def bëgguñu ko raffiner fii voilà comme suñu or bi rek ñu taxi loolu nag moo tax loolu nag si ñun voilà moo tax ñu takkoon suñu digg ñun travailleur du pétrole ne SAR kenn du ko tëj tey kenn du ko tëj ëllëg ñu retirer l'assistance ah, technique vous avez senti le oui tout c'est là il faut saluer le professionnalisme des raffineurs de la de la SAR. d'accord ba ba ñu retiré euh, euh, kii euh, assistance technique bi ñoom dañu takk seen digg maintenir raffinerie bi tey jii raffinerie bi retiré nañu marge marge de soutien bi loolu sax dañ ko war a delloo parce que raffinerie seen adduna bi yépp am marge de soutien dañ ko retiré te terewul SAR mi ngi def ay bénéfices mi ngi dox extension dañu war a consolider extension pour que pétrole Sénégal bi bu génnee ñu raffinerie ñun ñu raffiné ko doxal suñ mission. lépp les besoins du ñu ci syndicat yi ñu bàyyi Sarr xam na nañu société euh, syndicat pétrole nga bokk léegi ñu waaw waaw dëgg la xëy na nag dama <laughs> maa ngi jégalu euh, maa ngi jégalu ba poser question parce que ma koy euh, sur la lettre la c'est-à-dire que bon cadrage bu président bi baax na mais il faut que euh, le nouveau gouvernement travaille sur l'exemple mhm. gis nga Sénégal pour mu soppeeku mën na mën na mën ñu soppi mais noo ko mën a soppee mooy par l'exemple nga wone nit ñi teg seen bët que c'est possible comme ni mu dawee par exemple tout à l'heure Sarr c'est un exemple mm-hmm. qui qui peut servir au pétrole au gaz aux mines à l'or à notre agriculture c'est-à-dire que nit ki euh, il faut que mu xam ne que que c'est possible si c'est possible il faut qu'on ait confiance en nous Et, et je crois que pour man euh, vraiment le le président Diomaye il faut qu'il travaille sur les exemples que askan bi dafa bëgg a teg bëtam ci li nga xam ne lii c'est possible c'est à notre portée mais là il faut se battre et je crois que ça au niveau des agents de de l'administration mais nañu dem sax jusqu'à donner des prix mmh. donner des prix de de de performance si là ça réussit pourquoi pas demain la douane pourquoi pas demain les impôts émulation économique sociale et culturelle dafa baax ci suñu réew parce que les gens ne croient pas en nous le Sénégalais ne croit pas il croit plutôt euh, à la manipulation au raccourci euh, euh, bon on est paresseux je pense que on a Sénégal dafa soxla quand même euh, une révolution culturelle c'est au niveau de notre imaginaire qu'on a un blocage D'accord. je crois que ça, ce côté-là, c'est. Maintenant, pour la question pour le chef, c'est. Bon. Ça y a un travail d'éducation. Il y a un travail d'éducation. C'est vrai qu'il y a l'école, c'est vrai qu'il y a l'université, c'est vrai, c'est vrai, c'est tout ça. Là. Mais le syndicat, est-ce qu'il ne doit pas reprendre sa fonction originelle Bonne éducation, le syndicat pour les travailleurs. Par on parlait tout à l'heure de l'éducation euh, à la, à, à la, à la, mhm. le, syndicat. Les agents fonctionnaires, là, mais ils, ils font partie des syndicats. Mmh. Donc autant État bi mën na jouer son mais le syndicat aussi peut Bien former sûr. ces ces mhm. travailleurs, ces mhm. pour avoir une responsabilité, euh, comme il l'a dit là, euh, que syndicat dafa war a préparer. waaw c'est clair moom li mu wax sànq. c'est dans vingt cinq ans par exemple formé ci le bien commun lañ koy gérer mais dans dans vingt cinq ans imagine-toi l'Afrique aura une population très jeune mhm. l'essentiel des richesses du monde seront en Afrique mais si on se prépare pas pour les vingt cinq ans à venir bah, on, va vers le même statu quo c'est-à-dire qu'on va dépendre donc syndicat bi aussi am na wàllam ci wàllum éducation euh, je crois formation et puis peut-être même dans la gestion. d'accord président Cheikh Diop dégg nga question bi. parce que bu ñu xoolee ay Japon les pays asiatiques seen i travailleurs comment ils son nombreux mais comment ils sont disciplinés comment ils sont ñàkkul ni syndicats yi aussi dafa am liggéey bu am solo bu ñu ciy def. ba ci brassard rouge yi yooyu yëpp ñoom ñoo ko initié. effectivement xam nga brassard rouge ñu bëri ñu koy ñu koy def te cosaan bi dëgg-dëgg kiiwuñu ko brassard rouge effectivement Japon la jógee ak. Euh, gis nga bu ñu takkee ñoom brassard rouge. Mhm. bu ñu daan produire benn fukk la ñuy produire dañuy dañuy doubler production bi noonu la ñuy def pour wane seen mécontentement. ah oui ah pour wane ni mën nañ plus. pour wane seen mécontentement xam nga loolu eh, impact bi mu am mooy les usines tout est paramétré tout est mhm. prévu bo boo waree produire dix nga produire vingt les dix autres là problème lay ci yow. Mhm. yow yow mi produire loolu moo tax ñu koy def. mais wane seen mécontentement. ok loolu foofu la brassard rouge jógee donc. mouvement syndical effectivement am na am na mission suñu première mission mooy fexe ba interlocuteurs yi ñu former leen comme il le faut. temps jeex na nag de. ah oui interlocuteurs ñu former délégué du personnel yi dañ leen war a former. Mhm. syndicats yi ni ñuy poser revendication parce que tey jii dans le secteur de l' par exemple gars ñi dañuy wax adéquation formation emploi nañu xoolaat suñu système éducatif. du revendication xaalis lañ parce que notre action s'inscrit dans celle du peuple et que nos des populations donc système éducatif bi war nañ ko xoolaat pour adapter ko ci besoin économique yi loolu am na li nga xam ne aussi jàpp nañ ne war nañ ci taxaw mooy violation droit des travailleurs yi ak seen liberté am na ay sociétés yu nga xam ne fu mel ni Ciments du Sahel ak groupe Laus délégué du fa am délégué bu fa am ñu dàq la donc loolu bokk na ci li nga xam ne aussi du doxal réew du doxal économie donc maa ngi leen di sant di leen gërëm waaye daal mhm. autorités yi nañ bàyyi xel ci violation flagrante yi nga xam ne une minute vas-y euh, violation flagrante yi nga xam ne mi ngi am bu njëkk ba ñu ngi ko doon gisee ci secteur public privé mais léegi mi ngi ci biir secteur public bi li nga wax RTS dañuy dugg ci li ñu warul dugg dugg ci syndicat yi di manipuler loolu na fi jeex parce que syndicat yi nga xam ne liggéeykat yi wóolu nañ leen il sont positifs proposition yu ñuy def yu positif lay doon accompagnement bi ñuy def pour les politiques publiques yu positif lay doon waaye nag ñëw ci Sénégal jàpp na yow war nga mën a corrompre tous les systèmes ba délégué bu fi taxaw nga dàq ko ce qui se passe au ciment du Sahel c'est des choses inadmissibles te ñun dinañ ci taxaw xar ci suñu tànk tubéy te loolu corruption moo ko moo ko lal société privée boo xam ne bitim réew la borom jóge waaw ñëw di imposer. dictaam ñëw teg fële texte ak ré texte ak règlement yu réew bi mais ku ko dooleel ba mu am fit boobu. alors loolu fit boobu li ko ko may mooy euh, corruption bokk na ci kon dañoo wax ni ak ak si yi président Diomaye Faye dégagé. monopolisation bi doo ci wax. hein monopolisation bi doo ci wax. monopolisation yenn sociétés yi nekk ci réew mi. monopoliser benn secteur. benn secteur ñoom lay doon depuis 1960 ba léegi. di fa def lu leen ciment sax brisé nañu monopole bi mais gis nañ suukar si. di fa def lu leen yow mënoo ñu produire suukar su day te kenn du fi créé waat euh, sucrerie. loolu yëpp war nañ ko xoolaat euh, raffinerie de sucre et cetera ak yeneen. mooy évaluation mooy mooy bi ma la wax état des lieux bi ma la wax. secteur yi war nañ ko càmbar. non non Basirou Diomaye am na problème. war nañ ko euh, maa ngi door xam ne am na problème. <laughs> am na am na problème bu rëy rëy dernier mot ma bàyyi ko. mais sinon mais mais le dernier mot c'est bon aussi une question c'est c'est que on sent que la situation financière n'est pas stable donc fii peut-être deux trois mois le problème des salaires la masse la gestion. Euh, du pouvoir d'achat, ça va être un problème sérieux dans les trois quatre mois à venir. Les syndicats doivent quand même se préparer à ce qui va venir dans 4, 4 mois. C'est-à-dire la dette est là, le service de la dette, euh, le, la dette intérieure, mhm. le respect des engagements avec les syndicats. Bon, ça peut être sombre pour les travailleurs. Mhm. Les syndicats, ben, euh, comportement la ñu war am pour pour anticiper sur les problèmes à, à venir comme tu dis bah euh, les, les mois qui restent là hein, va être des mois de pression sur le nouveau gouvernement et je crois que euh, le dialogue social vaut mieux l'anticiper en euh, sur les conflits à venir euh, fii ak le mois de le mois de décembre. D'accord. je crois que le, le, les syndicaux aussi am nañu une part de rest responsabilité dans la stabilité du pays. Mhm. Euh, waaw man li may fi may daaneele mooy dañu am un grand défi ñun mouvement syndical mooy dañu dugg en plein et day gën a intensifié ci économie virtuelle. économie virtuelle suñ demee ba machines yi ñooy produir richesse bu ñu demee ba robots yi ñooy produire richesse nit ñi ko daan produire di revendiquer ak di poser ay revendications pour lekk dutuñ amati lekk kon le véritable combat du mouvement revendicatif c'est d'accéder à un nouveau contrat social xaalis boobu robots yi di produire xaalis boobu machine yi di produire ñu am un fonds social bu ñu koy répartir ci doomu aadama yi ndax ñu dund tax ñu vivre donc le nouveau contrat social est l'objectif du mouvement syndical moderne le message loolu moom boo ci yokkul dara dara dara xanaa di wax rek parents d'élèves yi dégg naa ministre des doyen <laughs> Guirassy dégg naa léegi euh, bulletin de note yi léegi parents yi lañ koy yónnee directement par message wala par WhatsApp boo yam nañ problème ah mais ça c'est une bonne chose <laughs> c'est une lépp ci nee dañuy informatiser informatiser ba léegi bulletin de note parent bi day jékki-jékki rek message ñëw sa doom bulletin de note mu xool lépp balaa xale bi di bis si kër gi moom donc fekk na tout est virtualisé tout non c'est une bonne chose les parents quand même vont euh, en tout cas les parents qui savent lire et écrire. ah oui bien sûr xam. Euh, Sénégal moom lire écrire boo ko mënul yow dinañu xam ah. dinañu dinañu participer à l'encadrement des des enfants je crois que c'est la digitalisation aussi. Euh, c'est c'est un chantier. oui bien sur les collectivités territoriales et Euh, doyen moom si Albert di la gërëm di la sant. merci altine incha allah xanaa mariage dina ñëw altine bu soobee yàlla. ah waay maa waaw di gërëm suñu invité euh, di président Cheikh Diop ci disponibilité am di la gërëm di la sant bu baax. jërëjëf mbokk yeeg xarit yéen tamit di leen gërëm di leen wax encore déwénati di leen baaluwaat àq ah, wax yombul des fois nga xosi nit te doo ko yëg parce que ñi seetaan comme ñoo ëpp xam-xam ñiy toog di wax ci micro bi donc vraiment war nañ di leen baalu àq parce que wax moom. Euh, peut-être yàlla moo la koy jagleel rek ci micro mais ñiy toog ñoo la ëpp xam-xam fuuf fuuf fuuf ba tax na di leen gërëm di leen jéggalu di leen baalu ak bu baax a baax a baax ba altine incha allah.